auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa saabil ajmain yi mbokku internet yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baal àq di leen baal àq di leen ñaane yàlla jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen ñaane yàlla mucc ak muccule te di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax di ñëwaat ak yéen ci seen chaîne bi nga xam ne mooy coranique les grands secrets ñu di fi séddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi nga xam ne dana yombal dund doomu aadama yépp te yow ay mbiram ci zaahir ak ci baatin tey nag dañoo ñëwoon ak yéen indi leen secret boo xam ne secret bu doy waar la muy secret boo xam ne pour wàllu noon la maanaam nit koo xam ne dangaa nekk ak nit wala nekk ak ay nit te bëgguñ la ndax léegoo léeg doomu aadama bi mënoo neex ñëpp te loolu sax mënta nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy gën gi mbindeef amutoon benn sikk waaye gisoon nga amoon na ay noon ñun ñi nga xam ne nag ñooy nekk doomu aadama simple noonu mënta ñàkk suñuy suñuy mbir noonu mënta ñàkk ci suñ dund doomu aadama bi léegoo léeg loo mënti nekk rek danga ci am noon ndax léegoo léeg mën ngaa nekk ak nit di liggéey ak moom mu def la noonu ndax lan ndax di gis na ne yaa ngi dem demut léegoo léeg mën ngaa nekk ak nit mu def la noonu lu tax ndax gis na ne am nga dara mu noonoo ak yow léegoo léeg nit mën na laa jël def la noonu sax te doo ko def dara ndax àdduna moom léegi nit ñi xaaratuñ sax nga def leen wala nga wax leen ngir ñu noonoo ak yow buñ la gisee nga nekk ci say mbiri bopp rek mën nañoo noonu ak yow te duñ yem ci noonu googu dañuy dox ci yàq say mbir dox si doo baaxle mukk te loogoo léeg yàlla daf leen di jox dëgg lool ci njëlbeen ndax doomu aadama booy def lu bon ñaare yàlla daf ci ànd ak yow ba nga defe ne yaa waaye buy ñëw ak ay mbiram bu boobaa danga dootoo am pexe ci fen kon nag yow mi nga xam ne danga am noonu di liggéey ci bërëb nit bëgg noonu ak yow ngir jëlee la fa di sëy ci bërëb nit bëgg noonu ak yow ndax jëlee la fa di nekk ci ay yëngatu yoo xam ne bu sottee sëy mbir dana ci baax nit noonu ak yow tax mu yàqal la fépp yow moomu dangay jël secret bi nga jëfandikoo ko incha allahu sa noon boobu dootu la mënal dara ci kaw ci kaw suuf comme ni ñu leen koy waxee pour def ko secret bi danañ ci ñew ak yeen wa ñu leen di xamal ne képp ko xamne ne nga def secret yi ñu leen di wax man nga ko jël nga jëfëndiko ko nga defal ko sa bop bu ñu kenn o ndax wuñ ci nit ñi di ñu o di jëflanté ak ñun wuñ ci lolu képp ko xamne ne nga ko defal sa bop rek man nga ko defal sa bop té ñu leen di wax ne képp ku sétane vidéo bi ñi ngi lay ñaan nga def nga def secret bi nga defal ko sa non, té amul kenn ku amul non non dana tax loo yootu doo ci jot ndax dafa muy yegg di yàq sabaat yeggu fa ba ngay defar noonu dana tax sëy boo am mu tas noonu dana tax sa doom bu sëy dana ñëwaat noon dana tax sa doom sëy dana ñëwaat noonu dana tax ku sëy ci si yow dana dellu noonu dana tax képp ku ñëw sëyri sëyal si sa doom dana delluwaat nit ñi naan goro bi la nangam la nangam la fekk ka def sax waxe ka def jëf ji amaana ndax newul ca kër ga ka def jëf ji amaana sax nekku fa wala siqu ak moom sax lu muy lu muy fexee ba say mbir di yàqu waaye da ngay gis ne waxtu wu nekk loo dugg rek mu yàqu foo labat ñu delloo la say mbir koo sëyal muy góor wala muy jigéen sëy bu du am du am ñeenti weer léegoo léeg mën ngaa nekk ci ab diggante diggante bi neex loolu ba ngay mébét mbiri takk waaye da ngay jékki-jékki yëpp yàqu fekkee góor nga ku jigéen gi wan la ginnaaw su sa si saa si nga gis mu àndaat ak beneen góor fekkee jigéen nga tamit ku góor ki wan la ginnaaw nga gis si saa si mu takkaat keneen nit ñi naan laan dangaa am faro rab nit ñi naan laan ay di euh, dalaa wor fekk wóoru la noonu moo jug ci say mbir ba sa mbir yàqu kon nag boo toogee di seetaan wala ngay faj faru te amoo ko wala ngay faj maanaam ay gaaf te aayoo gaaf wala ngay def nangam te neewut ci yow loolu yëpp noonu mën na koo indi ndax noonu mébét la lu bon rek baaxul ci doomu adama te léegoo léegi jigéen nit mën na laa noonoo nga sëy si kër nit ne kii bu fi amee doom samay mbir du baax xaaral ma def ko loo xam ne du am doom boo toogee nag jàpp ne maanaam mbiri ay gaaf la wala ñu naan la nangam bi moo la dal ngay jëkkati sa xaalis di ko joxe ci sëriñ fu ne nga dem fa ay hôpital ak fu ne fekk liggéey boobu liggéey la yàq la boo xam ne sa noon moo ko def yàlla yàlla musal ci loolu moo tax yow mi nga xam ne loolu dal na la sa mbir yépp yàqu loo jaay du du jar kenn mënta jëflante ak yow lu ne rek loo dugg rek mu yàqu da ngay fexee jël secret bi nga nga jëfandikoo ko ni nga koy defee da ngay ni ut àlliwa xànjar aliwo xànjar moom ngay ut da ngay ut aliwo xànjar aliwo xànjar euh, nit ñi léegoo léeg tëgg yi dañ koy faral di jaay léegoo léeg itam mag ñi dañ ko daan am di denc ndax aliwo xànjar lu baax la boo umut aliwo xànjar nga ut feccu sémmiñ feccu sémmiñ mooy sémmiñ li ñuy goree dangay ngay dindi bant bi weñ gi moom ngay jël nga bind ci li nga xam ne maanaam moom mooy baat bi inna batsa rabbika la sadiidun inna batsa rabbika la sadiidun moom nga ciy bind soo ko ci bindee comme ni mel ni gis ngeen chaat gi dañ koo ubbi chaat gi dañ koo ubbi dangay bind sa tur moom ngay bind ci kaw boo xamee sa noon nga bind curóom ci suuf boo xamee say noon nga fexe ba chaat gi rëy nga bind ñi nga ñi nga ragal ci say mbir yépp nga bind seen tur ñoom ñëpp ci suuf bu nekkee na xamoo seen tur nga def sa tur yow kese ci digg bi yow mi nga xam ne yow la say mbir mel noonu soo noppee danga nga koy jël nga teg ko ci safara moo am gaz la fur na la wala matt la li nga xam ne sa am ami àddina may na la nga tàngalee loolu loolu ngay jël nga jël faccu semiñ boobu wala nga jël aliwa xànjar bi teg ko ci kaw taal bi bàyyi ko bam xonq cuy ba mu bax bam bam bam xonq bu xonqee incha allahu déggal ma naan ba mbax bu xonqee incha allahu nga jël ko ut soo soo boo xam ne soo ndox la boo xam ne utoon nga ko bu yàgg laata ngay teg mbir yi nga def ci xorom soo ci defee xorom incha allahu da ngay jël facc semmiñ boobu wala alliwa xànjaar bi nga dugal ko ci biir soo bi bu boobaa dafay fay dafay tàngoor bi dafay bàyyi ci biir ndox mi nga jël ndox moomu nga sangu ci gannaaw boo julee tusubaar muy naaj bu tàng gannaaw boo julee tàkkusaan gannaaw boo julee timis nga sangu ci ñetti yoon nga sangu ci ñetti yoon insha allahu rabbi si boo ko defee sa noon dootu la mënal dara lépp lu waay def ci yow ngir nga yàqule du yegg si ci yow waaye nag amuñ gàllaaj goo xam ne day defante moo tax du dellu si moom ndax alxuraan moom amut loolu yoruñ loo xam ne nit ku la def mu ñëw mu dellu ci moom déedéet fayu beneen mbir la fayantoo ak nit beneen mbir la bokkut ak gàllaaj goo xam ne pour muslu ci sa noon la lii képp ku ko def incha allahu sa noon dootu la mënal dara ak képp ku mënti yaakaar incha allahu maa ngi koy waat ci alquran jéem a tiim ne dootu la mënal dara ak lum am am am ak lu mu man-man ak fa muy jëlee kooka la man-man-man incha allahu dootu def lu toll ni tafatayaani mu ñëw ci yow incha allahu ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla di wax ne yàlla na yàlla defal leen jàmm defal ñu ko yàlla yàlla may leen jàmm may leen tawféex may leen ubbeekaay may leen wërsëg bu bëri tabarke te yaa lépp loo xam ne seen yëngatu la ak seen bëgg-bëgg yàlla na leen ci yàlla jotala su nekkee ne duru luy may yàlla képp koo xam ne am nga soxla boo mënta dafa yàlla yàlla fajal la ko képp ku am ku am ku tawat yàlla na ko yàlla saafara képp ku tawat yàlla na ko yàlla saafara ci anam ak wér yàlla yàlla feesal seeni xol feesal suñuy xol ak yàlla te feesal seeni poos feesal suñuy poos ak àddina ñi ngi sant ñi ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.